Il n'y pas eu d'incident. Le représentant, il n'y pour le moment. Euh, le représentant euh, du PASTEF et Samoussa Kadou. C'est ces deux-là qui sont pour le moment. Maintenant, pour les membres du bureau, tout le monde est là. Bon, on a commencé à temps, oui. On a démarré à 8 heures. Bon, on a réceptionné le matériel à 7 heures. on a mis la disposition et tout ça. Et à 8 heures, on a démarré. Bon, là, il faut que je demande euh, 50, on est à 50. On est à 50, oui. tàmbale nañ à huit heures ah huit heures précises lañ tàmbale buñ fekk nañ fi toutes les commodités ah disposition yëpp bulletin yi c'était à l'heure la sécurité aussi à l'heure gisuñu fi benn incident ah représentant yi fi am ñaar la benn bu sàmm sa kàddu ak benn bu Pastef ñoo fi nekk actuellement actuel à l'ombre de votre bi ils sont dans temps actuellement vers neuf heures normalement la euh, vote bi ça se déroule bien actuellement. bi ñu ñëwee fii 7h30 ba léegi ça s'est bien passé on a récupéré récupéré matériel bi bon l'a installé installé nañ ko ak euh, ñi fi nekkoon président accesseur ak euh, secrétaire bi donc dans l'ensemble il y a pas eu de problème donc amul benn problème bu ñu constaté pour le moment tout se passe très bien vraiment macha allah. actuellement ñaata. votant ñu ngi ci trente ans entre trente et trente un environ hmm. une trente. oui oui c'est-à-dire placer liste il fallait respecter d'abord les salles étaient un peu exiguës il fallait trouver le moyen il fallait que ñu wut moyen pour mun a placer bulletin yëpp quoi ku dugg mun a accéder ci bulletin bu mu soxla daal donc loolu moo ñu xaw a tardé tuuti. bon ah, en tout cas fii compté naa jusqu'à vingt ah il y a environ vingt bureaux. Hmm. donc vingt bureaux mi ngi fii actuellement mais ci lu ñu constaté daal tout va bien incha macha allah. ñoom seen taxawaay mooy ci lépp luy indi jàmm ci ci biir Afrique moom la ñuy dox euh, te tey dañoo ñëw ti saytu maanaam élection yi euh, xool ni muy doxee ba xam hmm, ni ñu ko tëralee ñu ngi koy doxalee noonu daje nañu ak ay président de bureau euh, ñu gis ne ñuy daal fépp fu ñu dem rek président yi ña fa secrétaire yi ña nga fa assesseurs yi ña nga fa représentant de bureau tam ña nga fa. waaw liñ ciy remarqué rek mooy représentant yi bureau yi moom bëriwuñu waaw Pastef daal la ñuy gis sàmm sa kàddu ak wàllu waaw yeneen deux partis yi moom pratiquement gisaguñ seen représentant ñiy voté tamit gis nañ vraiment ñi ngi voté dans la sérénité ci jàmm nit ñaa ngi ñëw di dugg di voté si jàmm gis nañu mag ñi gis nañu ndaw ñi jigéen ñi ñëpp daal vraiment ñi ñëw di voté